yow mi ñu tudd Moustapha yaa jëf lu jommal surafa daane nga a dem yam na xadiimal yow mi ñu tudde yaa jëf jommal surafa daane nga mbëri soog a dem sa tur wi wenn rawu ko sa waajurit kenn gënu ko sa askanit kenn gënu ko sa jikko nag kenn du ko am. mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xam ni ñooy bàyyi xel seen site internet bi di Wilaya TV ñu ngi ci bërëb bu sell di bayti ngir euh, ànd ak dong yi añ yi nga xam ni dañ koo baaxoo indi at at mu ne ci kanamu sëriñ bi ngir feeñal seen yéene ci bis bu sell bi nga xam ne ci la ñuy fàttali ko mu rasool ñu def ko nag nañ ko daan defee ci indi bernde yi ba mu doy sëkk ci kanamu xalif euh, sëriñ Mouhamadul di sëriñ Abdul Mokhtar di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool yokk kattanam ak mën gi ba teewaay bi nga xam ne teew na ko ci mboolem njabootuk sëriñ Mouhamadul Moustapha gi mu yàgg ko taxawe ne mi jëwriñu cheikh mouhamadul moustapha ne ci kanamu njabootuk cheikh mouhamadul mustafaa gépp moo jox ndigal nu sant leen ci turam gërëm leen jottali leen ay ñaanam mu wax ni mu ngi sant njabootuk Serigne du mustafaa gépp bàyyiwul kenn muy doomam yi muy sëtam yi muy seex yi muy taalibe yépp bàyyiwul kenn muy xamle ni liggéey bii ngeen indi ki ko jëkk def te xalaat ko mooy Serigne Mbakke Mohamed moo jëkk xalaat jëf ju tedd ju baax ji waaye mu ànd ko rakkam yi muy Serigne Cheikh Mbakke Madina muy xalifab Serigne Mbakke Madina sëriñ Mbakke Mohamed bi sëñ Aliou Mbakke wàccee liggéey sëriñ Xaadim Mbakke war koo wuutu moom Cheikh Moustapha dafa nekkoon bitim réew. bi mu ñëwee toog toogaayu Cheikh Moustapha sëñ Mbacke Mouhamed wax ni sunu wajur wii nekkoon bitim réew ñëw tey toog toogaayu Serigne Modou Moustapha li moo doon def lépp ci bis bi nañ ko ko defal kooku sëñ Mbacke Mouhamed moo jëkk xalaat xalaat boobu. wax ni lépp lu jëm ci aw ñam suñ nee suba màggal gi ni tey jii danaa ko indi añ ak reer ak ndékki bu bisub màggal gee danaa ko def ba mu doy sëkk. suñ nee màggal nañ ba noppi ba ci suba gaati danaa ko defaat mu doy sëkk ndax gan ñetti fan la dañ koy teeru daral ko gunge ko loolu mooy ngan sëñ Mbàkke moom it moomu nag ni sëriñ Cheikh Mbàkke mer na mii rakkam lépp lu ci war nag ci lu ñuy naan mbaa ay doom mbaa lu ñu war def ci teraanga yow jox naa la ndigal nga def ko loolu it sëriñ Cheikh nga ci ba bisub tey bii démb la indi fii teraanga yoo xam ni ci lu ñuy naan ak lu ñuy booleeg lu ñuy naan ci aw ñam doy na sëkk diiru màggal gi gépp kon loolu mu sante ko bu baax sëñ Mbacke Mohamed yaa noonu ko yàlla fayal waaye ba mu ñibbee àjjana nag doomam ju baax ji dib taawam di sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed moo jël liggéey boobee na ko waajurum wa jëlee woon waaye mu yokk ko nag yaatal ko. ba mu ëpp na meloon gën na meloon lépp di doy buñ ne suba la màggal bisu màggal gi bu màggalee ba ca suba ga. lépp Serigne Moustapha def na ko defin woo xam ni waaye mu ànd ak jawriñam yii mu koy sant nag nga xam ne la gën a rafetal liggéey bi te gën koo baaxal ci ñoom la jooy koy mooy Serigne Baraloo ak sëriñ Mbaye Seck ak sëriñ seex Sarr Jasaaka ak sëriñ mu Mouhamadou Ba ak sëriñ seex Dia Taïf ndongo yi ndongo yi ndongo la sëñ bi nee na teew nañ ci kanamam waxtaan nañoo ak moom ñaanal na leen sant leen gërëm leen yóbbal di leen cant nag te Cheikh Moustapha ne bu ñu demee nañ ko wax ni sëñ Amadou Boutar nee na xolam sedd na xelam dal na sëg bëgg da nga ko am àddina ak alaxira yaa ñii nga ànd di liggéeyal Serigne Touba jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf damay bañ a rek gudd ba kenn di yëngu ndax yëngu bi day xaw a tiis moo tax rek waaye bu woon loolu dañ ciy wax loo xam ne lii da xam ne ki ngeen àndal jar naa àndal te nawet maam ji lay niru jërë ngeen jëf daal donga yi ñoom ci ñoom lañu nekkoon ngir ñuy taxaw ak a gën a yeesal seen jaayante boobu nga xam ni yàgg na fi lool te ñu baaxu ko tamit di ko taxaw kon daal jërë jëf